jàmm mbokki internet yi safo di seetaan Buzz MTV Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si topp bi ngeen di topp seen bi comme ni ñu koy waxee way leen di abonné like vidéo bi partage ko moo ngi noonu général Moussa Fall ba léegi sénégalais yi nag ñooy laaj ba xam mooy wër mooy wëy jiite armée am déet loolu nag dinañ ci dikk ak ban taxawaay la kii di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye war a taxawee jamono bi nga xam ne nag am na sénégalais yu bare bare bari jamono bi li bëgg te jàpp ko nag mooy moom général Moussa Fall mu daal di génn si armée bi si sénégalais yi tamit ñu ngi ñaxtu tey wax kii di président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu daal di jug si ay mbiram moom mii nga xam ne nag moo di Macky Sall jamono bii nga xam ne nag nekkul réewum Sénégal ñu bari jàpp ne daal moom Macky Sall waru woon sax teggi ab tànkam si réewum Sénégal bay dem si beneen réew Lolak nak dinañ ci dikkee ana ban taxawaay lañ ci wara lep am xaaliss bu takko takko bi nga xam nak lepp nañ ko mu nek ay bor yo xam dal bayyi nañ ko fi mu nek uh, lu doy war lo narna jur ay jafe-jafe ci nguru ko ki nga nak di président Bassirou jomay jaxar fay ki jiti won santak modi di di général Moussa Fall ak ki jiti won police ndax ñoo ko ñoo leen jiti ba légui parce que su fekké ni ñoo leen jiti ba légui lutax daal ba léegi ñu jiite lu tax am na am dégg naa démb ku koy laaj ne moom loolu rek lay laaj ndax ñooñu ñoo fi nekk ba léegi bu fekkee ñoo fi nekk lu tax ñu baleen fi ba léegi beneen bi mooy président ah, président si avion président bi ma dégg ñu naan xaw ma kan moo ne dañ ko war a jaay xaw ma Abdou Mbaye xaw ma mais lu tax ñu koy jaay lu tax ñu koy jaay ndax am réew war fa ñàkk avion. te itam wax dëgg yàlla buñ ko jaayee xanaa duñ ko jaay di dugg ci avion jàmbur wala di di di di lang ci avion jàmbur parce que yenn yi delloo gannaaw la wala wala manqué de personnalité lañu war a def mooy audite ko audit avion bi dañ ko war a audit lañ wax ne moom lañ ko jëndee ñu xool ba xam ndax loolu am na wala amul loolu moom war nañ ko def dégg nga audit arène nationale xaw ma bi nga xam ne moom la chinois yi waxoon dañu ñu koo may te ñoom ñu ne. dañ koy jënd xaalis boobu ñu wax ne moom lañ ci def war nañ ko audit arène boobu war nañ ko audit parce que arène bi ñu la may ba pare sa gouvernement ne na moom def na ci nangam milliard te loolu amul foofu dañ ko war a audit poste xaw ma Siré moo ko jiitoon xaw ma kooku dañ ko moom dafa bokk ci ñu war a teel saytu lépp loo xam ne service public bépp service public boo xam ne réew mi ko moom ka ko jiite woon lépp lum fa lubal ci alal nañ saytu lam am ci alal yëpp yëpp yëpp ñu nangu ko def ko ci bor boobu kenn ku ci ne secteur ba nga jiitoon la nga fa bàyyi ci bor daal ak la nga fa yàq ak la nga fa lubal lépp nañ ko calculer nu mu toll ñu teg ko ci ndoddam mu fay ko seeni bien yépp ñu nangu ko Mame Mbaye Niang Mame moom waruñu ko bàyyee sax silib silib silib laa wax de silib silib waruñ ko koo bàyyee ak ñu mel ni moom Aïssata Tall Sall doomam jooju nga xam ne moo fi indoon bracelet pour toroxal sénégalais yi lam lam lam ci luubal yépp ci milliard na ko fay ba pare ñu nangu lam yor yëpp moo ndeyam bàyyi leen ak yaramu neen fu ñu xam ñu jëm waaw Ismaïla Madior Fall nag moom kenn waratu déglu déglu ay waxam moom ay waxam moom benn étudiant waratul nangu mu di jàngal benn sénégalais waratul na nangu Ismaïla Madior Fall di la jox leçon parce que kooku warul jox kenn joxati kenn leçon waratul jàngale sax jàngale ci boppam waratu ko def moom waratul jàngale ci réew mi di Sénégal moom Ismaïla Madior Fall Antoine Diome lépp lu mu yor nañ ko nangu silibam sax nañ ko jëlaale silib silibam sax nañ ko jëlaale parce que li mu yàq ci réew mi benn ministère de l'intérieur mos ko yàq ci réew mi di Sénégal kon moom itam nañ nangu lépp lu yor ba silibam sax buñ ko mënee simmi simmi ko ak ñu mel ni ñoom kon yàqkat yi fi nekkoon yëpp mel ni ay njéeréer yoo xam ne dañoo dugg ci gàncax dama ne ñoom ñëpp nañ leen teg ci yoon lépp ñu am nañ ko nangu suñ leen waree denc ñu denc leen ñu xam ne lu bon baaxut lu métti kuñ ko teg mu métti lañ doon teg askanu Sénégal ci méttit ak naqar ak coono ak jafe-jafe yëpp nañ ko wëlbati teg leen ko teg leen ko parce que comme doole jëleen yàlla joxoon ba tax ñuy def yàlla teg na ko ci loxol ñi fi ne ñoom itam nañ jël lépp loo xam ne yoon may na leen ko ñu teg ko ci seen kaw wasalaam toog muy dox yi. nañ ci bàyyi xel toog muy dox yi dañ leen war a am na ci ñoo xam ne dañ war a audit toog muy dox toog muy dox ak tàllal muy dox ak wax muy dox loolu dañ ci war a jóg sàkk ci pexe toog muy dox tàllal muy dox wax muy dox parce que dafa yomb rek wax rek ñu lay jox ay millions wala tàgg nit ñu lay jox loolu loolu dafa yomb dafa yomb kon toog muy dox ak tàllal muy dox ak. wax muy dox moom it na bokk ci li nga xam ne war nañoo fexe jëlee ko bi nit dangay liggéey da ngay ñaq dangay ngay fas yéene am dangay ngay fas yéene teral sa bopp waaye bëgg sukkandiku rek ci ay wax wax kese wax kese def ko muy métier ah toog nga def ko muy métier tàllal loxo nga def ko muy métier loolu képp ku bëgg sam réew dox doo doxalee noonu kon ñooñee nañu fexe ba ñoom it ñu dem liggéeyi toog muy dox yi nañ liggéeyi nañ liggéeyi jaamu yàlla dafay ànd ak liggéey wax muy dox yi nañ liggéeyi wax kese kese amul bu àndul ak jëf amul njëriñ wax day ànd ak jëf waaye wax ju àndul ak jëf du jëmale réew kanam tàllal muy dox tàllal muy dox yi lool. te wax dëgg yàlla am li ci ëpp mën mën nañoo def dara loo xam ne mën nañ caa mën nañoo daan seen doole pour am dara waaye bëgg noflaay rek dëkk ci tàllal loxo rek dëkk ci tàllal loxo loolu de yàlla nañ ci yàlla musal musal ci suñu njaboot nag tàllal loxo moom yàlla nañ ci yàlla musal musal ci suñu njaboot dëkk ci tàllal loxo rek musu ba naar laay du jëmale réew kanam kon yii yëpp war nañ ci sa beneen bi mooy ñu ñëw ci oto mbalit mbalit mi mbalit oto mbalit guddi lay ramassé mbalit mbalit guddi lañ koy ramassé mbalit guddi lañ te ñu fexe ba fépp fu poubelle war a am ñu teg ko fa su ko defee mbedd mi mën a set kër yi mën a set mbalit moomu oto mbalit yi guddi lañ war a liggéey waaye bëccëg jot ñu nekk ci circulation bi di booxanteeg ñiy liggéey dégg di collection ak sen collection bobu dañ ko wara arrêter dañ ko wara dakal te lolu pour ñu man ko dakal, il faut ñuy liggéey guddi parce que xey subatel nek di papa bi papa jo xamne yow da nga rom malade bo xamne bu yor tension wala mu yor mu jabet lu meuna febar jangur bu meuna yor rek corona bi mën na ko yok collection bi ko yok kon nañu jima set ci àdduna bi ni muy doxee parce que Afrique rek ñoo ñoo fi dese oto mbalit buy digaase mbalit bëccëg di pampam bi di di corna oto mbalit lu muy war naa mën a ñëw jël mbalit dem te kenn du yëg sax ne dem loolu nag pour mu mën a nekk il faut que ñu am poubelle yoo xam ne fu ñu war a teg poubelle dañ ko fa teg su guddi jotee suñ toogee ba minuit une oto mbalit yi jóg fekk nit ñi wàcc nañ tëdd nañ ñu dem ñëw ndànk raam ndànk jël mbalit bi yóbbu jël mbalit bi sotti tegaat fa poubelle soo xëyee da ngay yeew rek gis poubelle yi widd waaye nag bu poubelle amul itam dëkk bi du mën a set parce que boo amul foo def mbalit bu fekkee ne yow mbuus mbuus sax boo ko yoree doo gis foo ko dugal dëkk bi du mën a set kon loolu nañ ci bàyyi xel beneen bi mooy pavage yi mbedd quartier bu ñu koom-koom bi ñu suñ koom-koom bi ñu ko récupéré jàpp naa ndaw yëpp mën nañoo am liggéey parce que quartier bu nekk bu ñu bëggee pavé la fa nekk ci suuf yëpp la fa nekk ci mbedd yëpp ñu paafe ko ndaw yooyu yëpp danañ am luñ liggéey te Sénégal defe naa war na yegg foo xam ne waratoo jaar ci benn mbedd suuf benn mbedd bu am suuf war nañoo fexe ba dootul amati ci Sénégal lépp ñu paafe ko fu ñu war a def tali ñu def fa tali fu ñu war a paafe ñu paafe loolu itam dañ ko boole ci programme bi nga xam ne moom lañ wax ne moom la fi Macky Sall bàyyee moom la ñu fi bàyyil moo gouvernement bi fi nekkoon. booru yooyu ñoom ñi ko leb nañ ko fay mën nañ ko fay lu mu bëri bëri xaw ma quinze mille milliards xaw ma waaye ak lu mu mën a toll ñoom liñ jël ci alali réew mi ci milliare mën na ko fay kon man dama jàpp ne ñoom dañoo war a nangu seeni milliards yëpp yëpp yëpp dugal ko ci boru boobu nga xam ne moom la ñu fi bàyyil te suñu euh, ñu war koo fay teg ko ci suñu ndodd suñu njaboot war koo fay ba ci suñu sës setaat loolu dafa war a dakk réew munta sukkandiku ci leb rek leb leb leb boo xam ne yow da ngay leb la nga leb bu ñëwee ngeen séddoo ko ba pare bàyyi askan wi ñu nekk ci ndóol ak ñàkk ak toroxtaande saa yu nekk kon man dama gëm ne ñoom milliards yi réew mi nga xam ne moom lañ jël séddoo ko nañ ko nangu buñ bàyyee kenn kenn benn fifteen yëpp nañ ko nangu dugal ko ci bor bi nga xam ne moom lañ fi bàyyi parce que ñoo ko leb kon ñoo ko war a fay te yor nañ liñ ko fayee nag waaw li yor ci milliards xajut ci bor bi kon nañ récupérer milliards yooyu yëpp dugal ko ci bor bi su ko defee bu ñu leen di denc nag ci kaso gi ñu su ko leen denc waaye bu ñu leen denc mukk te du ne dañoo nangu li ñu yor yëpp yëpp yëpp yëpp delloo ko ci réew mi askan wi man cee gis seen bopp.